billahi min mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam ñoo ngi jiital ci nuyoo bi sëriñ bi nga xam ne yàlla def na tey mooy xalifa bi fii ci kër gi ci turu président de la république son excellence Macky sàll ñoo ngi koy nuyu di ko ziar di ko tartagal di ñaan yàlla yàlla bàyyi ko fi lu yàgg-yàgg te mu ànd ak wér sëñ bi suñuy tànk tey tànku jàmm la tànku ziar la tànku sàkku ñaan la ci ndigal président de la république yàlla def ko muy taalibe ci kër gi yàlla def ko muy doom ci kër gi yàlla def ko mu am kóllëre ci kër gi dene ñu demal leen ma Mbacke Kajoor nga ànd ak délégation bu am solo jóge Dakar waaye nga fekk délégation bu am solo wax ngeen ko fi léegi tudd ngeen fi le gouverneur ak ay service am tudd ngeen fi ay euh, honorable député sama nijaay tonton Cheikh Seck mu ngi fi tudd ngeen fi sëñ Sidi mi nga xam ne kenn ku ne xam na kóllëreem ak président de la république mhm. waaye tudd ngeen fi aussi seen jiili mu nga xam ne doom la ci kër gi kon délégation bu am solo la ñu indi waaye délégation bu am solo la ñu fekk fii loolu nag su ngeen ko gisee lenn kese moo ko waral dañu naan bés du rëy moom lay nuru mhm. te bés bi kenn ku ne xam na bésub Sëriñ Baara mënul men lu dul ni mu mel tey li ñëw ci délégation bi nag na ngeen xam ne président de la république xeeb na ko lool parce que dañ lu jëm ci kër gi lay am mooy lu mu man waaye lu mu fi yéenewul amul kon sëñ bi dafa waxoon suñu ñëwee nañu yeggal ziyaaram waaye aussi ñu réitéré taalibim waaye aussi ñu feddali kóllëreem ci kër gi nee na fii bokk na ci kër yi nga xam ne buntu seen buntu musul tëju jëm ci moom jëm ci njabootam jëm ci bëgg-bëggam loolu nag dafa bëgg fu mu tollu nit ñi nga xam ne mu ngi liggéey ak ñoom muy collaborateur am ñu xam ko waaye téyel ko bu baax parce que nag na ngeen xam ne président de la république comme ni ñuy faral di wax borom kër la ci këram borom kër nag ci këram la mu man mooy su xëyee joxe dépense waaye la ñuy togg lu mu doon neex naam neexul ña koy togg ñoom ñoo ko mën a xam borom kër président de la république nag dafa am ay ministre am ay directeur am ay gouverneur am ñu mel ne ñoom looloo tax lépp lu askan wi soxla jëmale ko ci wàllug diine jëmale ko ci wàllug développement réew mi ñoom ñoo ko fay taxawal et looloo tax lépp loo xam ne am na fi ci biir réew mi jëm ci wàllu diine am ku mu jël ci ndaw yi yónnee ko foofu bokk na nag ci lim ñu yónnee suñu ñëwee ñu yeggale ko mooy nga ñaanal réew mi jàmm parce que xam na leen am na jàmm fu mu amul développement dana fa sori jàmm fu mu amul diine ku ko wax da nga ko toppi dina jafe hmm. waaye bokk na tamit li nga xam ne mu ngi koy sàkku ci yéen mooy yéen ñi nga xam ne yàlla may na leen da ngeen di wax allahuma yàlla nangu ngeen gën a ñaanal ndaw yi ñu xam ne ay roywaay manqué wul fii ci biir senegal lu tax ñu wax loolu dafay nekk ay jamono période yoo xam ne période yu doy la am na ñuy jëlee diine ca yeneen réew di ko indi fii ci suñu biir réew te kenn ku ne xam na Cheikh Amadou Bamba li mu def ci biir réew mi foog naa ne loo ci nar yokk rek yàq day da cay dugg. moo tax bëgg na yéen ñi nga xam ne da di wax taalibe yi def leen ñu def ngeen wax leen bàyyi leen ñu ñu bàyyi ngeen di leen di ñaax fu ngeen toll xamal leen ne royuwaay liñ ci am ci biir réew mi doy na sëkk. kon amul lu ñuy jéggaane beneen bi mooy que ñu xam ne réew li ko yore bokk na ci yar bokk na ci teggin ñu xam ne ne yàlla ci boppam. moo yore lu dul jeex am lu dul jeex waaye defulul ñëpp kon dina jafe jaamu bu yàlla ci boppam mu mën a matal soxlay doomu aadama yëpp euh, leneen lii euh, di leen xamal rekk ni tey ci tey mbégte bu am bu rëy lañu am parce que nag fii ñu ñëw kenn ku ne xam na bokk na ci dëkk yi am histoire ci wàllu mouridisme su yàlla nattoo ba nga ñëw ci bés bi nga xam ne bésub ganuk àdduna sëriñ bu mag bi nga xam ne mooy sëñ Baara loolu mënuñ lu dul sant ci yàlla et ñaan yàlla également ñu koy def ay at yu bëree bëri. E di leen wax rek ni président de la république muy guddi muy bëccëg muy suba muy ngoon xam leen ne am ngeen ci moom cër parce que yéen dangeen da koo jox cër bu mat sëkk. te cër boobu nag dafa wax ne képp koo xam ne nitam nga képp koo xam ne yaa ngi liggéey ak moom mu fekkee. ak mu ñàkk fekke na leen taxaw ca nam ko ma ne ba parfois weesu ca nam ko ma ne lu indi loolu naam yàlla leen ko jox parce que suñu xasee ba ne nit surtout Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul la kooku matal na cër waaye dolli ci nag teggin bi nga xam ne dangeen ko am jëmale ko ci moom dolli ci yëg-yëg bi nga xam ne dangeen ko am ci moom te laqtuwu leen ci kon loolu day rafet suñu ñëwee fii ñu féddali leen li nga xam ne kóllëre bu nekk seen diggante la Euh, ci gàttal ñoo ngi rafetlu bu baax ni nga xam ne euh, accueilliral nañu ko fii ñoo ngi rafetlu bu baax ñi nga xam ne fekk na leen fi di feddali encore une fois de plus digganteem ak sëñ Sidi mi nga xam ne kenn ku ne xam na relation ak moom di ko encore feddali ci responsable yi nga xam ne fekk na leen fi yëpp suñu sañoon dañuy lim kenn ku ne ci ñoom jaar ci turam waaye ku lim juum waaye dañ ci jukki rek comme ni ma ko waxee ñenn ñi pour xamal leen ni daal kóllëre gi nga xam ne am na ko ci kër gi fàttewu ko benn yoon te incha allahu taala am na lum ñu ci sant ñu jéem ko ci def ay jéego et di ñaan sëñ bi nga ñaanal ñu ngir loolu mu ñu sant ci jéego ñu mën koo taxawe ñu mën koo joxe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf Serigne Cheikh Thioro porte parole nee na nuyu na mbooloo mi fi nekk yëpp ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. nee mu ngi yëkkati kàddoom. ci ndigal ak turu Cheikh Mamadou Moustapha. ci ndigal bu bàyyi ko ci Cheikh Mamadou Moustapha. mi nga xam ni tey moom la yàlla dogal muy jëwriñu Cheikh Mamadou Lamine Bara. muy jiital nag ci nuyoo yi. monsieur le ministre de l' élevage Samba Ndiobène moom mi nga xam ni délégation bi bàyyi ko ci président de la république moo ko jiite. ak monsieur le gouverneur de la région de Louga ak le préfet du département de Kébémer ak sous-préfet Darou Mousti. Moussa Ba ak adjoint Ba ñëpp nekk daaru Mousti. ak nag membre yi ànd ci délégation bi yëpp. muy le ministre conseiller Ndonga Ndiaye. muy suñu xarit Isma Dioum. suñu mbokk Serigne Djili Cheikh Astou Faye Mbacké. ak ñi nga xam ni nekk nañ fi yëpp son euh, honorable député Cheikh Seck. ne Serigne Moustapha nag mu ngi ànd ak njaboot gi yëpp. li tax fekku fi le ministre. ne la délégation li tax fekku leen fi waa kër gi yëpp. mooy li ma Dia léegi ci xew-xew yi fi am. ndax li dal ndax xew-xew bi dal ci suñu kaw démb. ndax naga ni si démb cérémonie bi fañ ko doon defee muy place publique ba lépp jekkoon na. ba nu war ko fa war a defee. waaye li dal ci suñu kaw. waaye li dal kaw. xam ni noo ko bokk. suñu ñëwee. sëriñ Moustapha nii suñu ñëwee. mu dagg siyaar yi. nanu dagg siyaar yi nga xam ne daayira yi doon nañ ko ko siyaare. ñëw saafonte ak yéen. ñëw recevoir leen saafonte ak yéen. moo tax fekku leen fi mbooloo mi ak waa kër gi gépp waaye sëriñ Sidi Mbacke ngi nii toog. di doomu sëriñ Abdoul Aziz Baara. di doomu sëriñ Abdoul Aziz te ni ko waxee léegi mu bokk ci ni ma ko waxee léegi mu bokk ci conseil territorial de la république. ak ñeneen ci njaboot gi. ak ñeneen ci njaboot gi. koo xam ne doomu baayam la. ak koo xam ne it doomu baayam la. muy député Cheikh Seck. muy député Cheikh Seck. ak ñi nga xam ne ay jarbaat lañu. ak ñi nga xam ne ay jarbaat lañu. wax ji nag ay rek la. nee wax ji nag li tax mu jox ma ma di ko jottalil baatam moo dee. ca mu yéene ñëpp dégg ko wax ji li cëpp lépp ay cant la. ak ay ngërëm. tàmbalee ca ki nga xam ne moo ngërëm li nag ak cant yi tàmbalee ca ka nga xam ni moo ko moom. ndax barab bii barabam ndax lii barabama. lu ñu fi def it moom lañ ko defal. lu ñu fi def it moom lañ fi nekk di ko ko defal. muy Cheikh mu Mountakha. muy Cheikh Mouhamadou Mountakha xalif général kullu murit. nga xam ne moom moo daan taxawu Cheikh Sidil Mokhtar. gannaaw it mu koy taxawu. gannaaw it mu koy taxawu. ba sëriñ Moustapha Mbacke mii toog jaaxlewul tiitul dara. ak ki nga xam ne nag mooy suñu sëriñ. muy bàyyi Ahmadou Makhtar mais nga xam ne tey moo nekk Daaru Xuddoos. nga xam ne moo yilif Daaru Xuddoos yilif guy mbind. nga xam ne mi ngi ci dëkk bi. ànd ak njabootu sëriñ Modou Moustapha mii ma gis sëriñ Baara yëpp ñëw yendu si. kon nee na ñooñu ñëpp. monsieur le ministre sëriñ baa ngi leen di mu ngi lay nuyu ci si turu mu wax. cant yi ñuy sant nag. nee cant yi ñuy sant nag. mooy li jëm ci màggal gi. mooy li jëm ci màggal gii nu ne. bi dañoo boole ñëpp. ndax sëriñ bi daf noo boole ñun ñii ñëpp. njabootu sëriñ baara gi. muy njabootu sëriñ baara gi. nuy ànd di taxawu màggal gi. nuy ànd di taxawu màggal gi. am ci loo xam ni. am ci loo xam ni. état rek moo ko man état rek moo mën loolu. saa su ma saa jub saa su màggal gi ma saa jub si nag. dañu ànd ak ñoom. dañu daan ànd ak état. ànd ak yéen ànd ak yéen. xool li nga xam ne mënaluñ ko xool li nga xam ne taaliba yeeg nun mënaluñ ko sunu bopp. te muy warteefu état. te muy warteefu état. ngeen jàppale ñu ci ngeen jàppale ñu ci. daanañ ko def. daanañu ko def. na mu gën a rafete na mu gën a rafete waaye ren. wante ren. gis nañ ci ak yokkute goo xam ni. gis nañu ci yokkute goo xam ni. ak pas-pas boo xam ni. ak it pas-pas boo xam ni. ak yéene joo xam ni. ak yéene joo xam ni. man mi doon dox ci diggante bi. man mi nga xam ni. ñaar fukki at lu topp maa ngi koy dox ci diggante bi. musuma ko cee gis musuma ko cee gis. kon su jataay bi amee. fokk ma leeral ko Serigne Cheikh Moustapha. ne xam na ko sax. ndax amul lu ñuy def. ndax amul lu ñuy def. te yëgu ko ko rendre compte baa nu tàggu ko doog a dem. baa nu jóge ca. baa nu jóge ca. te waxuñu ko ca waxuñu ko ko. monsieur le ministre. le ministre. ñu ngi ay sant. noo ngi lay seedeel ay cant. yu tàmbalee ci sous préfet. yu tàmbalee ci monsieur de l'arrondissement de Darou Mousty Moussa Ba. muy Moussa Ba fii la ñu ànd def CLD ñëw ñu jëkk a def CLD comité local de développement. ànd ak monsieur le préfet. mu def CRD mu def CDD. ñu jóge ci ñu jóge ci CDD bi. dem ci El Hadj Bouya Amar dem El Hadj Bouya de la région de Louga. def CRD def fa CRD. ñu tënk lépp tënk lépp. bërki demb euh, mu yabalaat moom monsieur le gouverneur yabalaat le préfet de Kébémer ak le sous préfet de Darou Mousty poursuivi ak chef de service concerné yëpp ñu ànd ak sous préfet ñëw fi yendu si ñu xool li ñu waxoon ak li ñu bëggoon luñ ci def ak lu dikkagul loolu nag. mu wannu seenu yëg akuk cofeel ndax innovation la ak yitte joo xam ne yitte woon nañ ko dëkk bi xëy na naam kenn mun mënta matal lépp ndax yàlla sunu borom mi nu bind sax mën na def lépp deful lépp waaye gis nañu fi loo xam ni muy sécurité muy sécurité muy wàllu hygiène muy wàllu Sénélec muy eaux et forêt muy santé muy environnement muy bëggul sax di lim di fàtte benn service te service yëpp sacrifié totalement ñoom ñëpp Idrissa Birame mi taas fay mi ma doon wax élevage ñëpp kenn desul. lépp loo xam ne capitaine war na koo jiite. ñëw na fi jiite ko. lu chef de service war a jiite. a jiite. ñëw na fi jiite ko. ba li bëggoon lépp. bu doon téeméer la bu doon téeméer ne quatre-vingt dikk na. kon nag monsieur le ministre délégué du président de la république représenté ko fi ñu ngi lay seedeel ni ñii ñu nekkal ci région Louga sant gu leen Serigne Moustapha sant sant itam nag di la yóbbante ay cant ci mboolem. ci mboolem. gouvernement bi yëpp gouvernement bi yëpp. di ko jaaree ci Aliou Ngouye Ndiaye. di ko tàmbalee ci monsieur le ministre de l' intérieur Aliou Ngouye ndax lu mu daan def itam. ndax lu mu daan def itam. mu daan bàyyi ci moom. ci ay bâche ak ci ay bâche ak lu ma sa doon bàyyi ko intérieur. lépp mat na lépp mat na. li nga wax fii léegi nag. ne li ñu wax fii léegi nag. diggante président Macky muy diggante président Macky Sall. ak diggante Cheikh Sidi Mokhtar. ak digganteem ak Cheikh Sidi Mokhtar. daf ko defoon waajur. nee président Macky Sall daf ko defoon waajur. defoon ko kilifa defoon ko kilifa. def ko ab sëriñ def ko ab sëriñ. bi jàpp ko. sëriñ bi jàpp ko. ci yooyu ma wax. ci yooyu ma wax yëpp. taxaw ci fànn yëpp taxaw ko ci fànn yëpp. moom mu taxawoon sëriñ bi. moom itam mu taxawoon sëriñ bi. ca lam ko mën a taxawoo ca lam ko mën a taxawoo. nekk ci loxoom ca mu nekk ci loxoom. ànd ak moom ci xilaafa gi ànd ak moom ci gi. li nga xam ne état koy def. li nga xam ne li nga xam ne état ko man di ko def. musu caa ñëblu dara musu caa ñëblu dara bi fi sëriñ bi bàyyi ko itam bi bi bàyyi ba tey. ñëw ci ay yoon. ñëw na ci sëriñ Moustapha ay yoon. ñëw na fii ci salle waxtu wi. salle bii ñëw na fi waxtu wi. bi élection yi desee ci un bi élection présidentielle yi desee woon lu toll ci weer. mu wax moom mii. sëriñ Moustapha wax ko moom mii. ci làmmiñ. ci làmmiñ moom mii nga xam ne moo ko jottali. ni ko demal président Macky Sall demal wate ji. gagné élection yi. ñëw fekkaat ma fii ci Mbàkke Kajoor. baaraam mi ne tamit daan bind ci jaww ji. ne loolu mu ko waxoon am na. te Cheikh Sidil Mokhtar it noonu la daan waxee gaynde du jur xar gaynde gaynde dong lay jur. foo ko Cheikh Sidil Mokhtar féete woon nag. cig jàpp cig jàpp. akuk ñaan ñaan. ak ak i xalaat. ba tey fa la nekk ba tey fa la Serigne Moustapha nekk. dara du wàññi ko ci Serigne Moustapha. ndax gis na ak cofeelam ndax gis na cofeelam. ci diine ji ci diine ji. gis na ko ci kër Serigne Touba gis na ko taxawaayam ci kër Serigne Touba. rawatina kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. rawatina nag ba Cheikh Sidil Muxtaar nekkee xilaafa gi. ndax ñeent yi mu doon wut yëpp. daf leen doon fal. ci conseil yi ci conseil yi. di conseil territorial. sëriñ Sidi Abdou Aziz mi ñeent yëpp ci kër gi la ko jëlee muy sëñ Sidi mii di doomam Matar Diop di sëtam Basiirou Jaxate di jarbaatam Amadou Fall Naydé di taalibeem di léppam kon fépp foo xam ni président Macky Sall waroon na faa féete sëriñ bi ba cër bu mu ko ameloon jox na ko ba mu mat sëg sëriñ Moustapha nag. monsieur le ministre se nee na Serigne Moustapha nag ci boppam moom moo lay yóbbante ci président. dégg na li nga wax lépp. nee li nga wax lépp yow Samba Ndiobène dégg na ko. kër gii kër Cheikh Modou nee na kër gii di kër Cheikh Modou Lamine. këru xam-xam la. këru xam la. këru yar la. këru yar la. këru teggin la. kër yi teggin la. ndax ku tedd ki Cheikhul Khadim. ndax ku tedd sunu yaakaar tey ëllëg seexul Khadim. mbaa lu ko jiitu ci ay yonent. mbaa lu ko jiitu sax ci ay yonent. ku yàlla mës a yónni. ku yàlla mës a yónni. tabax doomu aadama rek moo tax mu doomu aadama rek a taxoon mu yónni la. Serigne Touba itam Serigne Touba itam. tabax doomu adama tabax doomu aadama. moo nekkoon ab liggéeyam moo nekkoon ab liggéeyam. mënee su koo def nag mënee su koo def nag. te jaaree wuñ ko ci xam-xam te jaaree woo ko ci xam-xam. boo ko jàngalee ba noppi boo ko jàngalee ba noppi. nga yar ko nga yar ko. boo ko yaree ba noppi boo ko yaree ba noppi. nga yee ko yee ko. ndax sëriñ bi ku mas di joxe. ndax sëriñ bi kat ku mas di joxe. di la joxe daara di la joxe ca daara ja. kam lay jox kam lay jox. dala naan dala naan. nang ma ko jàngalal nang ma ko jàngalal. ba mu ne ar mooy lu mu war a xam mu xam mooy lépp lu mu war a xam mu xam ko. nang ma ko yeel nang ma ko yeel. nang ma ko yaral ba mu ni nër mooy yar ko mooy yar ko. ba mu feeñ ci jëmmam. feeñ ci waxinam feeñ ci waxinam. feeñ ci jëfinam feeñ ci doxinam feeñ ci léppam. feeñ ci jikkoom soo noppee ci loolu it. nga yee ko nag ba mu ni jaar. soo ko defalee ñett yooyu. neex a fëkk. du neex a fëkk. comme ni ñuy fëkkaatee. kër gi nag kër gi nag. ci loolu la sampu ci loolu la sampu. ci loolu la sosoo muy kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. itteem itam nag. itteem itam nag. amul benn itte. amul benn itte. moom Cheikh Moustapha moom Serigne Moustapha mi toog. bu jëm ci jëmmam bu jëm ci jëmmam. ndax ki ko fi teg. ndax ki ko fi teg. dana ko téyel jëmmam. dana ko téyel jëmmam. waaye njaboot gi mu ko bàyyeel. ak barab yi ñuy jaamoo ak barab yi ñuy jaamoo sunu borom. di ko liggéeyee di ko liggéeyee. mooy itteem mooy yitte sëñ Moustapha. bépp soxla bu président dégg itam. bépp soxla. bu président dégg bu président dégg. mu bàyyi ko ci moom mu bàyyi ko ci moom. ci yooyu lay jëm. na xam ni ngi bàyyi lépp jaay seen bopp jébbal ko seen bopp a tax mu jóg ci loolu. waaye du jëm ci jëmm waaye du jëmmi boppam taxu kon mi ngi sant. kon mi ngi sant. di gërëm di gërëm. sant nag njaboot di sant it ak njaboot gi. ndax mënu leen a fay. ndax mënu leen a fay. ndax fu ñu tegoon Cheikh Sidil ndax fépp foo xam ne njaboot ga tegoon na fa waajuram bu tedd ba Cheikh Sidil Mokhtar ak lu ñu daan jëflanteeg moom ak nuñ ko gëmee woon def nañ ko ci moom waaye lool nag dafa yomb waaye loolu nag dafa yomb ndax di koy Cheikh Sidil Mokhtar la amee ci fànn yëpp ci muñ muñ sëñ Moustapha ci yaatal gi ci bëgg lu baax ci bañ lu ñaaw saa su ne man mii di toog ak moom lu bari dama koy wax ni ko nun ndey ay taalibe lañu ci yow du nu say nawle bu suñuy baay bokkee baayit du nuy nawle du nu say rakk danoo jaay li nu am jënde kook taalibe wante nit su bëggee yilif ay nawleem da leen di gën jikko moom nag ñi mu war a yilif yëpp yilif na leen yàlla defal na ko loolu kon monsieur le ministre sëriñ te nag yow sa mi nga xam ni yow la président yónni te nu bokk région bi yow ëtt nga ñëw ci ëtt bi nga nga ñëw ci ëtt bi ñëw ci bis bii ñëw ci bis bii. ànd ñi nga àndal ànd ñi nga àndal. dalal leen seen xel dalal leen seen xel. ndax sëñ Baara mi sos euh, ak sa ndax Cheikh Modou Lamine Baara mi sos kër gii. kër gii kër Cheikh Modou Baara la. kër fii. keroog bi président dikkee fii. boo gisee ñu wax ko liñ ko wax. boo gisee ñu wax ko liñ ko wax dogg ko. ca loola la ñu sukkandiku. sëriñ Baara dafa daan wax ni. sëriñ Baara daan wax ni. itte itte. wala soxla baa soxla. wala tawat wala tawat. du jéggi mukk bunt kër gi. du jéggi mukk buntu kër gi. te saafarawul kon ku yàlla defal tawféex. ñi nga xam ne ñëpp tase nañu. région bi ñu fi nekk ñëpp di liggéey. ba tàmbalee ci gouverneur. préfet sous-préfet chef de service régionaux départementaux ak locaux ñi ci ëpp ñëpp ay gan lañu ca fii la ñu tàmbalee ci màggel gi la ñu tàmbalee seen liggéey kon ku fi ñëw dalalal sam xel ca li ma wax rek président li mu man yow pré nee li nga wax président li mu man mooy wut ay ministre wut ay directeurs nationaux ngir ñu koy jàppale ci liggéey bi waaye su ñëpp mel ni yéen day su seddee mën naa nelaw. kon ñoo ngi sant ñëpp. kon ñoo ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp gërëm ñëpp. Uh, kon xam naa li ci des yëpp. kon xam naa li ci des yëpp. bu subaa daanu tase ci kanam sëriñ bi. bu subaa daanu tase nag ci kanam sëriñ bi. seen tees beeg ñaani mu yeggale nag leneen li ci des. nee noonu sax la doon xalaat. ngir taalibe yi ngir taalibe yi. ndax uh, taalibe yi. ndax taalibe yi. kenn mënu leen a fay. taxaw nañu tem. lu ñu war a def lépp def nañu ko. lu mu mën di doon. lu mu mën di doon. tàmbalee ko ci bi fi Cheikh Sidil Mokhtar jógee. tàmbalee ko ci bi fi Cheikh Sidil Mokhtar jógee. tàmbalee ci bi. tàmbalee ci liggéey barabu sëriñ bi. ak yeneen ndigal yoo xam ne. ak yeneen ndigal yi nga xam ni. dégg nañ ko Cheikh Moustapha ko sëñ Moustapha mu jëm ci tool yi mu jëm ci tool yi ba ci màggal gi ba ci màggal gi ci mbale mi ci mbale ci ci ci jëm ci bisu bis bisu bis ci nga xam ne mooy bisub tey bi lu ci waay amoon lu ci waay amoon andi nga ko andi nga ko lu ci waay amoon pour bëgg bis bi baax indi nga ko ba lépp jàng na lépp jàng na kon sëriñ baa ngi leen di sant di leen gërëm li mu wax ci biir mbaar mi sànq li mu wax sànq ci biir mbaar mi daf ni ki ko fi teg. daf ni ki ko fi teg. dina ko sàmmal jëmmam. dina ko sàmmal jëmmam. waaye jëmmi taalibe yi. waaye moo ko fi bàyyi. aar leen. sàmm leen ba dara du ci yàqu. dara du ci ruur. dara kon mi ngi leen di sant. kon mi ngi leen di sant. di leen gërëm. di ñaan suñu borom. di ñaan suñu lépp lu ñu fi jàng ci lépp lu ñu fi jàng ci alxuraan. te ñu ñaan ko. te ñu ñaan ko. yàlla agale ko yàlla agale ko. ci jëmmi ki nga xam ni ki nga xam ni. moo tax ñu woote bis bi. ndax bi mu ñu wootalee. ndax bi mu ñu wootalee. ñu woo ñëpp. ñu woo ñëpp. ñëpp wuy si nañu. xalif généraux Tidiane am na ay xalif généraux Tidiane yoo xam ne fi la ñu yendu Cheikh Ahmad Tidiane Seck Cenaba fi la yendu sëñ Mansour Cissé sëñ Mansour fi la yendu sëriñ Babacar Sy. waxoon na dina yónnee waxoon na dana xaw ma na waaye Tiwaawoon xalif général Tidiane Tiwaawoon xam naa dina yónnee ndax daan na ko def. keroog ba mu fa demee keroog sëñ Cheikh Coro demee di ko wax. muy jàpp yoon muy jàpp yoon. damaa fekkoon muy jàpp yoon nee na dafa fekkoon muy jàpp yoon. waaye waxoon na dana yónnee. kon nag. nee ni ñëw na loolu la góor bu sëñ bi bëggoon. noonu la ko itam. nee na noonu na ko itam. noonu la ko. nee na noonu la ko. ku aju ci sëriñ bi ku ci sëriñ bi. defe defe. kër gu nekk a jiite. kër gu nekk ko jiite. ñëwal na boppam ñëwal na boppam. ku ci am ngant ku ci am ngant. seet nga këla gën a gën a jige. nga yónni ko noonu la cheikh yi def. noonu la cheikh yi def noonu la daayira yi def yi def. yi nekk Sénégal yëpp ba ak bitim réew. ñoom ñëpp ñëw nañu. ci sëriñ bi si andi seen siyaar ak seen yeeslu. kon yàlla moo am pay. ak sëriñ bi yàlla na leen fay. barke cheikhul xadim ñu dellu delluwaat sàkkuwaat yëpp ñaanal Serigne Moustapha yan bi mu yenu samborom téeñal ko mu yàgg fi lool mu yàgg fi ci ànd ko wér ndax kilifa munta ñàkk ku ko gis sa xel dana dal kon nag loolu la ñu bëggoon te Serigne bi yàgg nañu ko wax de si muy Cheikh Sidil Mokhtar maa ngi sant itam sécurité bi. wàllu sécurité sécurité ñoo ngi leen di sant. monsieur le ministre. monsieur le ministre. ni ma la waxo rek plus de quatre-vingts pour cent de réalisation dara manqué wut. leet naa nga nële. bërki démb ba léegi mi ngi ànd ak commandant brigade Daaru Musti taxawu dematuñu seen i kër fi la ñuy nekk ba ñu yewi leen ñuy soog a dem noo ngi sant waa jumtukaay surtout la presse fu ñu nekk fu ñu nekk. fa ñu fekk fa. ñu ànd ak ñun ñu ànd ak ñun ci màggal gi ba lépp yegg. kon pa presse jërë ngeen jëf. ba déwén ñëpp ñëw ne kon ba déwén ñun ñëpp daan fekkee déwén nan daal